nakar la ñu annoncé décès Mamadou Yatassaye Mamadou Yatassaye nag nekk PDG wu Aquaterra mooy ndox moomu noonu waaye aussi nekkoon euh, koo xam ne franchement daan na jàppale ndawi influenceurs yi moom Mamadou Yatassaye nag ginnaaw bi mu bokkee woon ci élection présidentielle 2024 ñu daal di koy woon euh, rëkkale jàllul woon ay parrainage am moom dafa continuer woon nekk ci liggéeyam Mamadou Yatassaye nag daal na fiy bàyyeekoo démb ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla xaare aljana suuf woyof ci kaw mel ni que nag moom Mamadou Yatassay nekkoon na ku daan dimbali ay nit daan jàppale ay nit ku ci mel ni boos ummi mooy ñaari influenceur yooyu noonu tax na daal di nañu koy jooy def ci moom ay témoignage ne Mamadou Yatassay nekkoon na nit ku ëmbul nit ku oyof nit ku baax nit ku daan dimbali nit ki te du ci te du ci xaar dara Mamadou Yatassay nag daal di na fi bàyyi ginnaaw bi mu defee ab malaise ci la daal di jaar ñàkk bakkanam ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaale Sénégal waaye di ko jaale Wally Seck ak Omoro parce que Omoro nag euh, fu mu daan toog ci plateau yi da daan tudd Mamadou Yatassay ci noonu beneen influenceur bu doon jaale Mamadou Yatassay Adamo Adamo nag jaale na Mamadou Yatasaay nag Mamadou Yatasaay nit ku baax nit ku yàlla baaxaloon waaye nit ku oyof Adamo comme dab rek moom du def dara te tooñul ma nga nag Omaro jot na nga dem liggéey ndax ki la daan jàppale nekkatu fi ki la daan dimbali nekkatu fi ma nga nag Omaro toll nag kenn rek nga desee muy Wally Seck ay influenceur dañoo jaadi jël taf photo Serigne Mboup ku ci mel ni jaara jaara muy ànd ak bu réew moom nag daal dinay jël photo taxaw 拜。 bu dee bu candidat bu baax ngeen di wër jël leen mi ngi ci Serigne Mboup doomu Kaolack gi ndaxte moom mi ngi créer ay entreprise jël ay jeunes teg fa ñuy liggéey mu mel ni que nag xale yi nangu ñoo dégg loolu xam ne moom la wax mais nag beneen commentaire yi ña nga nag sénégalais yi nañ nangu yeneen yi jàppale ku leen neex taf ku leen neex ñi faral Sonko ànd ak Sonko faralul Sonko bu leen neexee ngeen ànd ak ku leen war a neex waaye ñun am nañ droit ànd ku ñu neex beneen champion beneen mbër doomu Parcelles Assainies Modou Xarañ Lo ma campagnal Amadou Ba Amadou Ba nag la Modou Xarañ Lo àndal mu mel ni que tamit sénégalais yi dañ contre sénégalais yi nag léegi kat lan ngeen bëgg Sonko am ngeen droit faral ko Modou ma ngeen di tontu am na droit faral ku ma neex ku nekk anda ku la neex kala doy kala sax man Amadou Ba laa àndal tey moom la àndal ëllëg tey ña nga koy tontu ña nga nank bu dimanche 1 ba 26 nga xam ne ne Sonko mooy fay seen bàyyi ay ca beneen coow buñ koy tàmbalee waatee muy coow ëpp sénégalais yi loxo loolu mi ngi ñuy bëgg a dépassé ginnaaw Awa Ba bu defee ab live di def ay révélation ci kii aw Awa Ama Awa Ama fi mu jaar ak moom lim ko yàqal lim ko tuumaal lim ko sosal moom bébé Eva di wax bay jooy ñenn ñi ne ko bébé Eva sa moroomu jigéen bu mu tax ngay jooy ëmal sa bopp focus te ngeen moytu ay àndandoo jigéen te ngeen moytu ay jotaay te moytu ay yëf ak ay demalante ndax yéen jigéen ku nekk xam na seen ànd sincèreul ku nekk xam ne na ne seen ànd dëgguwul xana Awa Ama nag ba mu xëyee moom it daal daal dinay laayi falaat bébé Eva di koy tontu ne ko yow tee ngaa noppi li ma la xamal dafa bëri li ma la xamal toog ci dafa bëri tee ne patt noppi ma régler say cas léegi-léegi ne ko mi xam ne da nga daan jël ay sept mètres yu jesner di ko jox góor di ko investir ko toppatoo ana góor googu tey takku la faalewu la lijjantiw la yow mi xam ne dem nga Pikine Texaco benn kër goo xam ne benn ci lañ fa daan teg yow yow bébé Eva yow yaa tax kër googu fi mu toll ñu bér seeni njël yow xam ne saytaanee tax ana ñànku mi nga daan àndal ay na la wax nga ne dangaa toog si live bi di jooy man say jooy yëngalum say jooy safum moom bébé Eva ma nga nag awa ama yow yaa tax dematuma fenn yow yaa tax baaleetuma yow yaa tax génnatuma ndax fu ma dem nga fekk ba fa song ma fa xuloo baa nga song ma fa xeex keneen ku ñu dugal ci coowam bébé Eva muy Babacar Bongo ginnaaw bi Karbala defee apply donc góor day def yëfi góor baa nga def yëfi jigéen moom Babacar Bongo nag daa dinay tontu nee na moom saa yu ndogoo mi ngi place Fanta Mbuub nee na bu amul lenn lu muy def it mi ngi place Fanta Mbuub nee na awa ama xaritam bébé Eva xaritam la ñoom ñaar ñooñu saa jotee da ci daan dugg bébé Eva bu amee xeex sax koy dem jëlal xeex bi jëlal ko paar Babacar Bongo nee na seen xeex bi mujj bébé Eva mi ngi jël table dem soirée Sidi Diop moom mu jël table dem soirée mu moo jee foofu lañ ko woowee ne ko Babacar Bongo daw sil gaaw nga ñëw day nee na fecckat buñ nag ndey yërim sekk sax moom moo ko daal di woo ne ko daw mukk fi ngay toog ndax dangaa jël table moroomu jigéen du tax nga dem nee na nag moom yàgg naa xeexal ba e Eva yàgg naa xeexal Awa Ama parce que ñoom ñaar ñëpp ay jigéenam lañ leen ku ñu mës a joteel lekk da ciy daal di dugg moo tax karbaraan nag nee na moom bongo maan demul dikkul duggul ci yoonu kenn place fanta mbuub la ñuy coowee place fanta mbuub la ñuy waxee ay yëf place fanta la ñuy defee seeni manigas ba tax na kii di Awa Amar koroog ba muy def laay fa fanta mbuub moo nekkoon si suuf di ko dittel li mu war a wax mu mel ni que nag fanta mbuub lu jig njaag rek moom mooy njaag sénégalais yi nee nañ fanta mbuub dafa war a régler te fanta mbuub bu saayu coow amee rek ñu tudd ko ci te loolu nit da kaa war a moyu nit daa war a daw coow waaye Fanta Mboum dawul coow benn yoon moom Fanta Mboum nag dawul coow benn yoon beneen coow Mame Ndiaye moom it laax nañ ko ci coowum bébé Eva Awa Amar waaye moom la mu wax dégg na ko beneen coow diggante sëñ Bada ak Mame Ndiaye Savon maam Ndiaye Savon wa ngay waat nee na ko ci barke Alaaji Fàllu Mbàkke Awa Buso mi ma yaakaar sëriñ Bada maak moom bis bu ñu demaatee ci yoon moo ko baal sëñ Bada sonal na ma sëñ Bada mi ngi may duulal axa fenal jël sama sëy bi di ko yàlla mariale waaye maam Ndiaye Savon nag mujjee naa avoué nee na moom instant yi sëyam dafa am problème sëyam dafa am coow sëy yëppay am coow ndaxte ku nekk rek booy sëy di nga joteeg sa borom kër waaye tasul te bu tasoon tamit du ci internet bi lañ koy yëgee bu tasoon du ci internet bi la koy waxee nee na moom maam Ndiaye Savon nag nee na sëñ Bada naka mooy ndaxte saa yu xëyee rek moom maam Ndiaye Savon mi ngi daw coow mi ngi daw nekk ci liggéeyam nekk ci boppam ndax bañ ko ko tudd ci ay détails jëkkëram bëggul ay détails bëggul ay coow amaana na sax nee na nag tasagul Sénégal bu tasee du internet bi moo koy bind ci internet bi la koy yaar yaari beneen coow buñ koy tëjee Mouhamed Ali Diop Mouhamed Ali Diop nag ku nekk xam ne ne def na sept relation ak bébé Eva soo xoolee am na épisode wu série ñànk boo xam ne moom moom Mouhamed Ali Diop daal dina ci génn ñëwoon ci ñu invité ko woon ko waaye nag ginnaaw bi mu takkee jabar fee ca France la coow li tàmbalee foofu la bébé Eva daal di jëfuuree sénégalais yu bari tuddee ko trahison Mouhamed Ali Diop nag nee na loolu du dañ doon génn yàlla dogal génn réunion seeti leneen te defe naa ne loolu dara nekku ci nekk nga ak nit dix ans ngeen defalante lu nekk ngeen xëy ku nekk seeti leneen loolu du woon Mouhamed Alé Diop nag nee na du moom mooy toog di yàq bébé Eva ko dara dul jigéen ju baax la jigéen ju gëm boppam jigéen ju nangoo liggéey jigéen bu am fulla moom Mouhamed Alé Diop nag nee na nañ ko bàyyi mu sëy sëyam ànd ak jabaram te yàlla rek tax ay ca jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi 5 TV ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax lépp lu fi wax mu nekk erreur rek maa ngi tuubaat di ko jéggalu jërë ngeen jëf